ci ñaari fukk ak juróom famille ñi ñu dàq seeni kër mu doon métit bu rëy ci famille yooyu nekk fii ci cité millionnaire biir Grand Yoff voilà muy euh, njàqare muy situation bu bu métti boo xam ne ñoo ngi koy dund depuis un certain temps vraiment au moins euh, dû à euh, benn litige boo xam ne donc dañoo toog rek ñu ñoo xëy indi ñu kayit xamal ñu ni kër gi dañ ko jaay. problème bi yàgg na lool ñoom di xamal ni. tollu na fanweeri at bi seeni wayjur jëndee parcelles yi waaye ñii di office notarial jox titre foncier yi démb ki leen ko jaayoon. ndax problème bi dafa doy waar te dafa yàgg depuis un certain temps on ne sait plus à quel sens se vouer munoo toog ko munoo sa xel munul dal problème bi sama yaay sax da ci feebar. ndax chaque fois fu mu toog day xalaat chaque fois fu mu toog ndax jëkkëram da ko jëndal kër bàyyi ko fi tey ci ginnaaw jëkkëram ci lii yëpp après commencé tàmbale xew mu des ak njaboot bu 2018. ñoom bindoon nañ benn lettre adressé ko kii di président de la république ngir yégal ko problème bii ñuy dund. le directeur de cabinet directeur du bi nga moo fi nekkoon moom dafa waxoon ne kat na nit ñi arrêté li nga xam moom la ñuy def jëriñ dénk wàllum kaaraange réew moom it wax lu ñu mel waaye tey jii nag moom xamatuñu fan lañ jëm ndax gis nañ ne saa su ne ni ngi ñëwaat di wax ne fii dañ fi war a quitté laataa ñaar fukki fan ci weerum janvier. les gens vont quitter. fu mu nekk nii ñoom di xamle nii dañuy taxaw xeex ngir ñu bañ a ñàkk. seeni kër. puisque vingt cinq familles ku leen bëgg a yëkkati vraiment yaa ngi def loo xam ne lii kenn xamul lan la donc nu sommes prêts ay y laisser notre vie on va être du matin au soir kenn du fi dugg waxuma la sax nit mais engin sax du jege fii pour laal naan benn kër dinañ ko fi yëkkati. famille yooyu di sàkku ndimbal ci président de la république ndax ñu bañ leen génnee ci seeni kër.